bon c'est un peu écœurant dans une république sérieuse où vraiment le chef de l'État prônait un gouvernement sobre et vertueux. Gouvernement sobre et vertueux vraiment demande le respect des fondamentaux de la bonne gestion mhm. d'un État de droit. Euh, suñ la ay luy ay fonds nga war ko càmbar war ko liggéeyi war ko joxe ci li nga xam ne loolu lañ la sas loolu lañ la digg mhm. nga ciy def naka su noonu mhm. loolu benn sénégalais mënu ko rafetlu mhm. mais nag comme dañu épinglé euh, rapport la ñu épinglé leen ce qu'on peut faire c'est attendre la justice qu'est-ce qu'il fera qu'est-ce que la justice fera est-ce que réellement elle ira jusqu'au bout de sa logique ou bien elle n'ira pas jusqu'au bout de sa logique mais li fi am important, ne que les nekk sénégalais ñu dénk la dara alali mbooloo soo ko lekkee gore woo war am humilité am modestie am reconnaissance ci la jox en même temps nga respecter sénégalais nga xam nyom nyom, ñoo tax nga accéder fofu non, de ce fait yow soy gérer gérer de la manière la plus adéquate et qui répondent maintenant aux normes administratives et aux normes de la gestion et des projets qui ont été fixés pour que yow euh, li fonds yi nga doon gérer nga mën atteindre say objectifs mais ñu jox la ngay xol say intérêt crypto personnel wala say intérêt xarit wala say intérêt kenen di jël xarit bobu di koy defalee di koy utiliser nous la neexee di koy brader comme ça ça c'est pas du tout normal mm-hmm. c'est pourquoi je lance un appel sur la justice. qu'il fasse le nécessaire, qu'il essaie de retrouver les failles, les personnes qui sont responsables de ces erreurs et de ces